ku ma gën ngir taxulaa bon ngir Mamadou Lamine mooy sama gën journaliste yi am ngeen lu ngeen wane tey tey noo ngi fii ci Wakaam départ nag ànd ak Serigne Makhtar Sylla Seykhul Asrar fan la ñu jëm ci Cheikh Bass moom Serigne Abdou Khadir mi porte porte la yoonu murid porte porte la yoonu murid muy kenn nag diggam ak Serigne Makhtar Sylla à travers le monde xam nañ ko muy at mu jot siyaar bi nga xam ne moom lay ànd ak waa Wakaam yëpp dem siyaar yi ki nga xamante ne. mooy porte parole yoonu murid muy Serigne Bassirou mu Serigne Abdou Khadim ñoo ngi départ ànd ak waa gox bi sëñ Maxtaar nag di gëm ak Serigne Bassirou Abdou Khadim ñëpp a ko xam fii la na ci wokkaam luy doxal yoon bi rekk moo ko ñor kooku mooy sëñ Maxtaar si la Sayxul Asraar ku xam waa ci la xam ay maamam nii rekk la mën a demee kooku sëñ Maxtaar si la am ngeen lu ngeen mën a tey journaliste yi am ngeen lu a tey tey noo ngi fii ci wokkaam départ nag ànd ak Serigne Makhtar Sylla Seykhul Asrar fan la ñu jëm ci Cheikh Bass moom Serigne Abdou Khadim mi porte-parole la yoonu murid porte-parole la yoonu murid muy kenn nag diggam ak Serigne Makhtar Sylla à travers le monde xam nañ ko muy at mu jot nga xam ne moom lay ànd ak waa Mukaam yëpp dem siyaar yi ki nga xamante ne mooy porte-parole la yoonu murid muy Serigne Bassirou Moussa Abdou Khadim ñoo ngi départ ànd ak waa gox bi. sëñ Maxtaar nag diggam ak sëñ Basa du Xaadir ñëpp a ko xam fii la na Wakaam luy doxal rek moo ko ñor kooku mooy si la Sayxul Asraar ku xam waa ci la xam ay maamam nii rek la mën a demee kooku sëñ Maxtaar si la bismillahi ah Ouakam yëpp génn nañu ànd ak sëñ Makhtar Sylla ñoo nga jëm nag sëñ Basiru moom sëñ Abdou Khadir ni ñu koy defee at mu jot ànd nun ñëpp dem siyaare ji sëñ Bas mu sëñ Abdou Khadir lii nag moo yoon bi waaye ku xam sëñ Makhtar Sylla xam ay maamam xam nii rek la mën a moo tax baaxantal da mu daan def at mu jot mu ànd ak soppe ak xarit yi ak waa fu ñu jëm ca sëñ Basiru moom sëñ Abdou Khadir siyaare bi ko xam ne mu jot amal loolu nag yàlla na yàgg kon mbokk yi ñoo ngi nii jóge Woukaam ànd ak Serigne Makhtar Sylla Sayxul Asraar fu ñu jëm ca sëñ Basiru moom sëñ Abdou Khadir siyaar bi mu amal at mu jot fa nu waaj jëm kon ñu dem jërëjëf ñoo ngi dem dige man ak yow. Sénégal عن الدرس عن الدرس عن الأمراض سياد البدن Das heutige lautet, du, du, ay si la ma ree ma Cheikhul Asrar bee Cheikh Sidi Makhtar ay si la ma ree ma Cheikhul Asrar bee Cheikh Sidi Makhtar ay si la ma ree ma Cheikhul Asrar bee da ngay yéene kon nag ci média be gaaye ku farwaar xam-xam yi may bëggalim ñoom dong daa fi na bu nga xam ko xam le ko doo kuy na bulan waar xarfun waa najmun waa aadaadun nga far dajale xarfun waa najmun waa aadaadun nga far misaanam yaa muxtaar waaye nii rek ngay mën a mel ku xam fa maame soosoo day dal di xam ni bu wéer doonu nga la saraar Habibu mooy ki ko jur Maxtaaru mooy ka ko jur Maxtaaru moomee ka ko jur mooy Cheikh la saraar balaa takku mbaa faal Cheikh ma fal ma sama borom baax Maxtaar Fatim Mare ma sama borom baax Bala Anta Touré ak Maxtaar Anta Touré Bala Anta ku ma faale yi mu jur Serigne tey ma faal ma mu jur Cheikh Maxtaar Fatim Mare ma Serigne Abibou Laye Cheikh Sidi Maxtaar si la Cheikh Abdoulaye Sarr Cheikh Sidi Maxtaar ay si la mareema Cheikhul Asrar be Cheikh Sidi Maxtaar Merci. Cheikh Makhtar Sylla donn nga jàng nga mboolem xel yi nii dajale ci yàlla yaa ko fi yaay Cheikhul Asrar doxe ba doobote waaju ñëw nga far ganale di xam la tey mayeli boole ko jaamu eski roy nga muxtaar yow yaa njëkk jàngale lasraar yi bu ci tablaay feeñal ko nag ci média be gaaye bu farwaar xam-xam yi may nga xam ko xam le ko dookuy na bulan waar xarfun waa najmun waa aadaadun nga far dajale xarfun waa najmun waa aadaadun nga far dajale ilmul xawaatim wa miisaanam yaa muxtaar waaye nii rek ngay mën a mel ku xam fa maame soosoo day dal di xam ni bu weer doonu nga lasraar مما يزعم من يوم وسبب لي بكلهم مضطربا بزمني ناجيت ربي الكريم بكتب ليس تريم أنوار ولي يوم أحمد غير زمني waaw incha allah ubbil waaw waaw. Diop mbokki salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi sant yàlla bu baax ñu ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom bàyyi ko fi te yàggal ko te may ko wér ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadul Bachir mii nga xam ni moo yor kàddu yoonu murit ñaan yàlla may ko wér kàttanal ko ci liggéey bii nga xam ni mu ngi koy liggéeyal maamam Serigne Touba sëriñ bi tey sa taalibe sa soppe ku la bëgg lool muy Cheikh Sidil Makhtar Sylla mii nga xam ni tey bi muy ñëw ànd naag mbooloo mu bari def délégation boo xam ni bàyyi ko wakkaam ay oto yu ndaw waaye kaar itam boo xam ni ñi yor liggéeyu Serigne Touba bi ca wakam muy fédération bi ak jëwriñ bi ak ñi ko yàlla booleel ci liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba ñoom ñëpp ñu ngi ci jotaay bi ñëw ngir ziyaar si la def ko na mu ko defe woon daaw ñooñu ñooñuy yëkkati xaside itam ci mbooloo mi lañu bokk Mbàkke Seex Sidi mu mi ngi liggéey liggéey boo xam ni ca Wakaam tey ma nga fay amal màggal goo xam ni màggalu Tuubaa Wakaam lañ koy tudde at yi weesu ma nga fay dajale kuréelu xasida goo xam ni toll na ci jëysul yoo xam ni bu cérémonie bi tàmbalee ñoom ñëpp dañuy toog ñu yëkkite xasaayit ñëpp di ko foo fekk mu fay liggéeyal samaam liggéey boo xam ni li tax jëwriñu daayira yi ak mbooloo mi ak moom jikkoom ak mbaaxam ak taxawaayam foofa moo waral ñoom ñëpp ñu ànd ak moom ñëw di koo xam ni kër gu mu dugg foofu danañ ko ubbil buntu kër waaye semaine bu bu jot itam soxna yee toog ak góor yàlla yi danañu daje këram jàng xasida mu togg ay bernde jox leen loolu danañ la ko seedeel Mbakke li ñuy sàkku nag ci sa jëmm mooy nga ñaanal lu ko mu yàgg fi lool te ànd ak di am na taxawaay boo xam ne fee ca wakkaam ba mu fa ñëwee kenn jëppiwu ñun nag xew-xew yee xew foofu yëpp lu ci bari danañ ko fekk waaye moom mii ña fa ne te bokk nu ci yoon wi bu bis bi jotee jaraaf yi ak ndey ji réew yi ak saltige yi ñoom ñëpp danoon ànd ak moom ci bis boobu kon damay ubbi kàddu gi rek bàyyi sëñ mun waaye sëñ di Silla jëwriñ mu ngi fi ñoom a Amdi Moustapha moom mu ngi fi Cheikh Cissé mu ngi fi Cheikh Abdou Mbeng mi nga xam ni moom la ñu fayee Cheikh Abdoulaye Mbacke borom dër bi moom it mu ngi fi ak ñeneen ñoom ñëpp ñu ngi ci jotaay bi ñoom seex Samba Diarra sëñ Mamour rakkam ñoom ñëpp ñi wala ànd yëpp ñëw nañu waaye fekk fii itam sëñ Mamoun ak sëñ xaadim mii ak Cheikh Abdoul Khadr waaye nuyu bu baax sëñ Ahmed Saloum mu baax mais nga xam ni sunu xarit waaye ku yàlla baaxal ak sëriñ Youssou mii nga xam ni doomi sëriñ Abdourahmane Fall Tilala la ñu bari ci jotaay bi lii mooy kaddu yi nga xam ni newoon naa danaa ko yëkkati ci kanamu sëriñ bi léegi damay bàyyi sëñ Mamoun moom it li ci des ci ay kaddu mu mottali ko ñu jébbal kaddu bi sëriñ bi jërëjëf ginnaaw bi nu sant yàlla sunu borom ñu julli ci sangi sangi Seyduna Muhammad noo ngi dellu nag di santaat Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu ci ànd ak wér ba li mu naal ci lislaam bi naal ko liggéey sëñ Tuubaa mu àggale koog sagom te nu ànd koog moom di siyaare bu baaxit it jëwriñam bii toog jàmbaaru fakk dëkk gii di kenn ci yoon wi muy Cheikh Mamadou Bassir moom Serigne Abdoul Khadir ginnaaw Mbàkke buñ la siyaaree te di la ñaanal yàlla sàmm la te aar la yàlla guddal sa fan Mbàkke te wéral la ba yéene ji sa kilifa yi am ci yow ba yëkkat liggéey bu tedd bii teg ko ci sa loxo Mbàkke yàlla nañ ko yàlla yàlla nañ ko àggale yóbbu ko foo xam ni kawe na seeni njort ndax bu ne yàlla na yan bi oyof kon day mel ni liggéey bi ngay séen mu jëm da nga koo xamul ndax liggéey sëñ Tuubaa moom mënta oyof waaye nag yàlla na la ko sëriñ bi téye boppam te loolu it rafet nañ ci jort ndax lan ni sa pas-pas ni sa taxawaay ak sa dëggal ci sa diggante ak sëriñ bi sëriñ Maxtaar Sylla nag mii toog di Seex Sidi Maxtaar Sylla ñu gën koo miin ci seexu lasaraar di sa taalibe di sa doom di sa lépp daje bi dara warulu ko lu dul ñëw ànd ak mboolem kuréel yi waa Wakaam yi ak mboolem dayre yi mboolem kuréel xaside yi ak waa Kër Sëñ Touba buñ tuddee sëñ di Sylla mii wax Cheikh Abdou mii mii nga xam dañ koo duppee sëñ Blaye borom dër bi mel na ni tudd naa ñëpp moom nag dikk gi li ci jiitu mooy Mbàkke feddali laxasaay yeesaluk taalibe yeesal pas-pasam ngir kat sa taxawaay ci moom ak am gim la am def la ngay kilifaam di léppam loola kanam rek la ko jëmee waaye gisu ci benn yoon loo xam ni dana wàññi daraam ndax yow képp koo xam ne bëgg na sëñ tubaa ba agsi ci yow pas-pasam day yokk ndax yow eh, eh, mbàkke fii nga toog bëggoo dara xooloo dara yëg-yëg yi nit am ci àddina sax yow danga nga koo weesu yow benn yëg nga am muy sëriñ bi sëñ Moussa Ka moo waxoon nag sëriñ bi waa ju ko gisoon na gisub xol koo mën a tee gis mu sew ci sam xel sëriñ bi waa ju ko gis mu gis na koo mën a tee gisit du tax mu doy la sëriñ bi ku ko mos mu mos la koo mën a tee mosit du tax mu saf la waaye sëriñ bi ku ko am te ñàkk ko koo mën a tee ñàkk du tax ni nga faale ko yow nag mbàkke foofu nga ne yow benn pas-pas nga am benn jublaay nga am benn bëgg-bëgg nga am muy jëmmi sëñ Tuubaa moom mii nag jaayante gi mu jaayante ak yow bàyyi la ak léppam ak ñëppam ak féppam loolu nag def gi mu ko def defu ko ngir sëriñ Bassirou Abdou Khadir mi yor kaddu yoonu murit mbaa sëñ Bassirou Abdou Khadir ni porte parole déedéet doomi sëñ Abdou Khadir ji nga xam ni day murit saadix liggéeyal sëñ tubaa ba ay kilifaam gërëm ko yëkkati garaat yi takkal ko koo kii moom la sëñ Matar jox boppam. kon nag bu àndaate ñii ñëw taxaw fi sa kanam ñuy waaj bis bi nga xam ni at bu jot dañ koy amal muy màggalu Serigne Touba gu mag gi nga xam ni da koy amal ca wakaam lii moo di wax dëgg la kuréelu Jeysun yàggees na koo dégg waaye nag ci biir mbooloom laa ko njëkk a gisee ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett ñu daajandoo jës bu jàng ko ci benn barab murit yëpp toog di déglu loolu moo fay am te lu mel noonu nag mbàkke bu amee wax dëgg yàlla suunu tawféex la suunu yokkute la mu ñëw nag ànd ak mboole mbokk yi mu am yëpp sëriñ Jili nag mii nga xam ni day kenn ci moom di kenn ci yow ànd ak sëñ Xaadim Jaan mii di wëllëreem sëriñ Mamoore ngi nii toog di rakkam ñoom ñaar ñu bokk lépp waaye moom it mu jël léppam jébbalaat ko ko kon nag bis boobu nag mbàkke moom lañ jublu di ko waaj war le onze euh, de février daaw nag ci waxtu wi danoo daje fi sa kanam bi nu ñëwee ñii lañ toogee woon ñu fekkaat la nga toog ñii lañ ca war a jàllale ñu jàllale ko bi nu noppee jébbal kàddu gi loonu wax nu def noonu boo nee nan nan ko wéyale ñu wéyale ko boo nee ñu teg ci suuf ñu jugee fi teggee fi dem muréel ca tool ya defal la li nga bëgg ndax moom kat nee na dafa jaayante te ab murit nag te pas-pas la am ak liggéeyal sëñ Touba lu ko kilifaam wax rek loolu lay def cinq sànq léegi dama ko ne ba xam dañuy yëkkati kaddu gi jox la mu ne ma man euh, awma ci kàddu nanu déglu sëriñ bi jarul kenn di wax li euh, li sëñ bi wax nan ko def ndax nag sëñ bi moo ni wa intu jaalis man yakunu akbara min koy xaawilu saamanan wa tara ka ka an yoro mursalan li xaaja wax di loolu laay tilkal xaaja waaye daal sëñ Matar mii ab taalibe la ab murit la nit ku dëggal la benn bis nag damay waxtaan ak moom ndax nag moom damaa yàgg moom lool waaw bokk naa ci ñu njëkk a jaxasoo moom waaye fi nga koy gis nii pas-pas ci sëñ Tuubaa moom mën naa ne da koo judduwaale bi muy ndaw la loolu ne ci moom mus def lu matadi mus a def lu manqué daa nañ nekk ci jamono tolluwaay am bañ na ko teeñoo def nangam mu ne ma suma ko defee bi sangam sëriñ Tuubaa mën na maa teralee lu ëpp loolu te te te may bañ jër sama ginnaaw dara di ci am eh, kersa te nag kenn ku ne li nga xam ne yàlla bind na ko jot di ko ci jot te it sëriñ bi may liggéeyal moo ne yàlla waxab lakum maaraamu muy wax di xawaay jëla siina daamoo fii xidmati waxab lakum maaraamu mu ne ma gannaaw nag maa ngi ci te maa ngi jéem xam naa ne tawfeex sëñ Tuubaa nag danaa dajeeg moom te loolu nag mbàkke suñu jootaay bi ak yow doo doon nañ sëkk firnde doon nañ sëkk taxawaay kon nag Balla Aïssa noo ngi lay sant la gërëm mbooloo maa ngi nii yaa ngi nii bis baa ngi nii loonu wax rek noonu lañ koy defee. sëñ sëñ sëñ sëñ euh, jëwriñ sëñ Amdi Silla dafa wax ni ñu seedeel sëriñ bi Seex Samba jëw mu baax mi toog liggéey bee ñuy liggéeyal sëriñ Tuubaa muy kër sëñ Tuubaa gi ci wakkaam am na ci taxawaay boo xam ni taxawaay bu am solo loolu la ne woon nan ko seedeel Seex Mouhamadul Bachir nee na liggéey bi nee na ci loxol sëñ Amdi Gob lañ ko tegoon ak Serigne Cheikh Cissé waaye Cheikh Samba Diaw mii ñëw na fa barki dem nee na xool na liggéey bi nee na la jëwriñ mbàkk yu fay defoon nee na teg ko ci seen loxo nee na wéyal nañu liggéey bi nee na ànd nañ ci ak ñëpp ak jëwriñ yëpp loolu lañ doon seedeel sëriñ bi pour pour pour mu mu xam ne ko noonu waaye imaam imaam Ghazali tam ne ne Cheikh Samba nee na ba mu ci jógee ci kër sëñ Tuubaa yi tam kër Sidi Maxtaar Silla la dem ah sa nee na daanaka liggéey bi ne na daanaka liggéey bii waaye Serif Aboubacar Aïdara itam ànd na ci délégation bi moom it xam naa ni mu ngi ci ci biir ngir gunge Cheikh Sidi Maxtaar sëriñ bi mu ne asalaamualeykum wa rahmatullah ne ñi ngi nuyu mbokki jullit yëpp ñi ngi nuyu mbokki taalibe yëpp rawatina waa Ndakaaru gépp rawatina nag yéen ñi nga xam yéen a bàyyi koo ca Wakaam sëriñ bi nee mi ngi yëkkati ay kàddu yu nuyoo ak ay kàddu yu cant ak ngërëm di ko teg ci loxo Serigne Sidi Muxtaar ak mboolem ñi mu àndal ñëpp Serigne bi ne bàyyiwunu kenn nee na buñ ci tuddee am Amdi Silla buñ ci tuddee am Amdi Silla mi nga xam ni way juram la nee na nekkal Serigne bi ci barab ba ak sëñ Abdou Khadir Ñang mii nee na ak seen Khadim Diagne ak mboolem mbokki taalibe yëpp sëriñ bi nee na ko sant bu baax nee na it te sant yàlla bu baax di sant sëriñ Touba ci ni fekkee gim ni ko fekkeeloo nee na ci fekkee gii nga xam ne fekkee wat nañ ko tey tey ñaan ñu fekkee ko ay ati at muy ci bisam bii nga xam ni mi koy def di ci liggéeyal la sëñ Touba ndax nee na liggéeyal la sëñ Touba sëñ bi nee na la ca jiitu mooy jàng alxuraan gi ñu ci def ak nee na xasida yi xam ñu ko ci jàng rawatina nag nii nii ñu koy jëmmalee nee na ci jëysun boobee nga xam ni nga xam ni ab lim bu màgg la ci lislaam rawatina nag ci euh, sëñ Touba. sëñ bi nee na kon nee kon loolu bisub sëñ Tuubaa la sëñ bi nee na berne yi mu ciy def itam ngir mu tasaaroo ci ñëpp loola tuyaaba ci kenn xamul nu mu toll na kon ñi ngi koy santaat bu baax nee na sëñ Sidi Mokhtar si la ñu ngi lay gërëm ci sa taxawaay nee na ndax sëñ Abdoul Ahad daa wax ni nit melul na mu wax na mu jëfee la mel nee na waaye seen Matar si la muy jëfam yóbbaale na ay waxam nee na te nag la ca ëpp solo nee ndax ni xam ngeen ni mu bokkee ci yoon wi nee na ndax sëriñ bi moom kenn ñëwut a bokkak moom waaye nag xam ngeen li mu bokkee ak yoon wi nee na ndax loola moom kenn ñi mu koo wax. nee na ndax lépp dañ koy jaay jëndee kook taalube waaye nag moom mi ku dëju ci yoon wi la na ku diggu ci biir yoon wi la te nee na mbokkum ñépp la te it boroom xam-xam la it nee kon nag bu jëlee lépp xam ne lii jariñe mooy ak taalube nee mu sóobu ci loolu te nee na la ca njëkk ginnaaw bi sëriñ bi ñibbisee Touba. dafa am ci mbokki taalibe yi koo xam ne day xool Cheikh Mamadou Moustapha ba ci yàgg Mbacke Balla mu yërëm ko lool mu ne ko Mbacke dama laa ñeewantal ndax yan wi dafa diis damaa bëggoon wax ma lu ma la ciy dimbalee mu ne ko lii ci lii ci lii ci jiitu dey mooy fexe ba defar sa jëmm mu ne ko boo ko defee rek dimbali ma nee na kon moom. nee mooy li ma ko gën a fonkee mooy lislaam ji mu amee fexe ba képp ku ko ku ko séen rek xam ni sëñ Matar Sylla mii ab jullit la waaye taalibe yëpp sëñ Tuubaa la nee na wala kuy kuy jaxasoo ko moom it nee na dangay xam ni nee na walewul loolu ci kaw ba noppi mel ne neen ci biir nee na kon loolu mooy li ci ëpp solo bi nu yàlla boolee ba nëgën itam mu def ma buntam ci di sëñ Touba sëñ bi nee na parce que bu dëggu nee moom laa xam ci moom aku ko sellal goo xam ne raxu ci dara nee na kon nag lépp lu mu nekk rek fas nañ koo yéene ànd ak moom ndax moom li ko war suñu diggante lépp nee na def na ko ba matale ko kon nag nee na dañ koy bàyyi ak yàlla ak jëmmi sëñ Touba mi nga xam ne moo ko tax di jëf yàlla na ko dëgëral te te kàttanal ko ba yoon wu mu sóobu tey liggéeyal la sëñ Touba ba yoon wu mu sóobu ngir liggéeyal seen Touba mu àgg rëkk te dara bañ koo dog sëñ bi nee na te wóor na ma ni. yéene ji mu am ak nee na xalaat yu yi mu am sëñ bi nee na loola bu yàggee rek dana am ay résultat yu bëree bari nee kon ñu ngi koy sant te di ko seereel ñëpp nee ñu ngi nuyu waa yépp yëpp ak mboolem ñi ko àndal nee na sëñ Samba Diaw mii maa ngi ko koy wax léegi di ko yóbbante ci sëñ Mbàkke yu mi nga xam ne mooy jëwriñu Ndakaaru gi ak li ko wër. ngir mu ànd ak yéen na bis bi nee na kon alaaj sàmba yéen it taxaw ci nee na comme ni ni ma la ko digalee rek ngeen xam daal bisi bisu sëñ Tuubaa la ngeen ngeen ànd koog moom te ngeen na gën koo fonku te xam ne loo yëkkate ngir sëriñ bi rek nee na waxtu wu ne da a fexe ba muy gën a kawe ndax ne bu ko pësef lalee rek nee na ca kaw rek la dem sëñ bi nee na kon nag ñoo ngi ñaan mi ngi ñaan ñu àgg ci ak jàmm de kenn bañ a am gàllankoor ba ñépp teew ci nin ko bëggee na ngeen jëf